liggéey bu yàgg soxna yi di jaay seen bopp ne mbas mi dafa am ay njeexital ci ñoom bu baax a baax ñu bëri nag ñu ci dajeel nangu ñu wax. waxal ak ba fiñ ci gis kii nga xam ne ñun ñoo ko tuddalee suñu bopp bel mu ñuy firndeel lu ñu mel. la bi tamit dafa dëgër kaa dafa miir te ñun tamit ay nit lañ ko ñëpp xëy na tamit suñu borom mooy natt ku nekk. ñu ngi ko fekk ci këram ci diggu liggéeyam bel yor doom ak kàddu yeneen soxna yu bari yoo xam ne dañuy jaay seen bopp te mu bokk ak ñoom seen kër gi lee. Covid 19 bu ñuy doog a egsi nag xaar nañ lu toll fukki minute ak juróom ndax fekk nañ ko mu am ku muy sekkal bi mu génnee mu dalal ñu ci ëttam. Ah, ah. bel nag ne jamonoy mbas bi li nga xam ne mooy digle kër docteur yépp dañ koo respecté ngir moytandiku jàngoro ji. takk sel soo ñëwee raxasu. après da ngay suñ génnee même chose. parce que duñ jàkkaarloo. day du mooyu ma du mooyu kon ay raay ay risque yoo xam ne ñu ngi koy jël bu baax a baax lu ni mel moo tax njëg gi ñuy jaayee seen bopp sax dañ ko yokkoo jigéen moom amul prix te suñu si jëlee feebar lu ñuy fajoo dina ëpp mm-hmm. kon moo tax dañ koy yokk jamono ju naxar tax mayuñu sax client bi mu tànn dañoo organiser seen biir ndax kenn ku nekk mën a jël wërsëgam. dañ koo def rang su kiy duggee kiy dugg pour partager ñëpp tolloo ñëpp am. jàngoro jii di coronavirus am ci ñoom ay njeexital bu baax a baax tax na soxna yi di jaay seen bopp fii ci diwaan bu Mbàkke teg seeni fem ba mën cee génn.